رضي الله عن شيخنا التياني وعن سائر مقدمه وخلفائه رضا يعم الجميع ورضي الله عن شيخنا الحاج عمر بن سعيد الفوتي وعن شيخنا وسيرتنا إليه مولانا الحاج مالك رضي الله عنه وعن سائر أبنائه وخلفائه ومن أحبه إلى يوم الدين mbokk jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. gannaaw bu ñu santee borom bi subhaanahu wa taala ñaan ko wuutu ñu jullit ñu ci yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam euh, ñaanal suñu wasila ci yàlla Cheikh Seydi Ahmed Tidiane ngi mbokk jullit yépp euh, fa tabaarakallahu ñu nekkoon ci téere bu barkeel bii ñuy wax awdaxul masalik fi madxi sayidi cheikh alxaaji malik doon téere boo xam ne tabaarakallahu dundu sëriñ bi cheikh sayidi xaaj malik lañu ci toppwaat ci centenaire bi ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal ñu ci dégg ak topp fayal ñu itam sëriñ bi mu toll ci waye wa yajlisu dikran fi lsabaxi wa fi lmasa wadifatuhu yowmiyatin la yufattari fa cheikhun mushaaru lfuutiyi lcalami lcali ala xaalihi lfaahim bisirrin muwaffiri fa fuutii laqad qaala almuxaqaqu qawluhu bi anna walida alfaahimi almutabassiri huwa alwaasilu alficli bi jiilin ya ummuhum ala xidmati alislaami wannahji yansuri fa cheykhun ala rabci alxilaafati jaalisun biidnin min albaari fa yasxu wa yaskuri fa cheykhun cadiimu almithli laa yulhihi alshukru an alsaxwi fi xaajaati yowmi li mushciri fa cheyxun fala yabdu alayhi xawaariqun fa yuxfiihi lissufahaai xiifata min makri fa cheyxun raqa marqa alkamaali wa mulkahu yushaahidu adaban kulla maanan min assirri fa cheyxun lahu rutabun amimun wa shaamilun biqadamayhi laa yatgaa lahu alqalbu fi ssayri fa cheikhun lahu sunanul huda lahu sunanul huda bistiqaamatin ka aadatihi la bilhawa bitafaxuri fa cheikhun lahu siimaatu ahli sacaadatin yuxibu likulli nnaasi xayran ala alxayri fa cheikhun makiinun fi lwilaayati maalikun bi awsaafi xayrin fi lmacaali almusahari fa cheikhun dura majjin xawa wa sacaadatin fa faaqa bi jiilin fi takarrumi mushciri fa cheikhun fa hatlul wabli yusbilu lil anaam fa yuxyi quluuba almayitiina wa da dayri fa cheikhun fa tilmiizun lahu gayru cheikh cheikhu gayrihi salil ahla fi senegaali yugniika lil watri fa cheikhun jimaul xayr jimaul ilmi fi yadihin tawa fa jihbidu kulli saalihina humu wazri fa cheikhun tuyurun lilmayamini muxdarun ala shajarihi yaxnu wa yaqsidu lilwakri fa cheikhun afa aadaahu fa afa lahum rusumun baqa min qalbihi anjumu zahri fa tabaraka allahu mu wax ne maam Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu anhu euh, yàlla daf ko may ñaari façon may may gu jëkk gi moom la ñuy tudde al mawahib al ilahiya mooy may goo xam ne yàlla mooy xool jaamam xam ne jaamam la moom mooy buur bi mu may ko ko gratuitement loolu Cheikh Al Hadj moom la judduwaale te dina feeñ léegi waaye nag mu amaat beneen may boo xam ne mayu mérite la moom moo kañ sonn di fanaan guddi di yendu eh, fanaanee naafila di yendoo zikr yàlla xam ne itam man amila saalihan fali nafsihi mu jox ko loolu nga xam ne mooy amul saalih kon moom ñaari may yooyu la am di li nga xam ne yàllaa ko ko may muy limu judduwaale ak li nga xam ne moo ko liggéeyal boppam yàlla fay ko ko moo tax li mu liggéeyal boppam nee na wa yajlisu dafa daan toog zikran di tudd boroomam fi sabaaxi ci suba gi jullee suba moom daanaka dundam yëpp toog la wa fil masa ngoon gi itam mu toog ban toogaay lay def mu ne wazifatuhu yawmiyatin ci wazifa jotaay jotaayu mbooloo bari sëriñ bu siiw booy dégg boo demoon zawiyam toog fa ay fan boo watul doo ko gis boo laajtee ñun sëriñ dafa tëj Seydi Haj Malik nag ci waxin ku ko ku ko bëggoon a seet euh, jarul jarul nga protocole demal toog ci jàkka ja rek di nga ko fa fekk mbaamu mu fekk la fa léegi ndax à la limite jullit suba gi moo koy mooy taxaw ci sa première sàppe bu ñu sëlmalee dañuy lal manaan bi ci kanamam kenn du ne dafa fatu wala di bu ñu wasifaa ba àggal mu tëj wala joxe ku ko tëj loolu itam bu ngoonee mu def ko te moom nee na xamul ku ko njëkk a saxal werdu maanaam wasifa suba ak ngoon ci ouest Afrique bii ma ne sax ci monde bi am na ndax wasifa ku ne xam ne ne choix la yow yaay xool yow yaay xool yow yaay xool ndax suba nga bëgg a wasifa wala suba nga bëgg ngoon nga bëgg a wasifa mbooloo moom nag benn bés mu ne ci tool yi ñu julli timis ba pare mu dégg ñuy waxtaan ñuy waxtaan ba coow li am ñuy reetaan ak yu mel noonu mu ne waa loolal la ñu nekk xale yi daara ji ñoo julli timis ba pare di xaar geewe gi euh, loolu lañuy toog noonu di waxtaan mu ne waa xanaa defu ñu defuñu dara ñu ne noo amuñu lu ñu def rek di dañuy toog ba julli ba pare ma ne nag comme amu leen loo def suba dina leen utal loo leen def te suba ga lañ jullee timis mu lal manaan bi bi ñu jullee bi ñu wasifa ba àggal géewee des tuuti mu ne nañ zikkër foofu ñu fay wax laa ilaha illallah ba julli jot ñu jug julli loolu sunnaam la li ñuy wax temps moom Cheikh Al Hadj Malick mosu ko nangu mosu ko am looloo tax mu ne moom ci boppam nag mooy jiiteel boppam wasifa bi suba ak ngoon te wax dëgg yàlla loolu ba fii may wax ak yow jafe na am muqaddam boo xam mooy jiite wasifa bi suba ak ngoon jafe na waxatuma laa moom ci époque am moom nga xam ne tabaarakallaahu diine tumuranke woon na lool ñi ko soxla bari laayu fattari te du am rupture moom maanaam doone sëriñ bi lu tax ñëwul kenn xamul ndax feebar na kenn xamul ndax wér na ndax moom toujours il est présent moo tax mag ñi bi mu feebaree feebar bi mu wijjee borom ñu bari seen xel ñaaw parce que fukki fan yi mu toog euh, jàngalew ci ñëw ci jàkk ji ñu ne tëdd na ndax moom bu ñëwul ci jàkk ji rek mooy mënul dara euh, loolu noonu lañ ko gëj gis ci wasifa ak ci jàkk ji quelques une semaine lañ ci teg après mu wuy ju boromam loolu nag xanaa mérite la moom moo ko liggéey bi nga xam ne nag moom moo ko judduwaale mu ne fa cheikhun mushaarul fuuti l alami l ali ala xaalihi l fahim bi sirrin muwaffari cheikh sidi haj malik mooy junj bi cheikh omar junjoon ne moom fu mu yem ci tariqa bi te cheikh omar yemul fen ndax mu ngi dem ba tey waaye fu mu yem ci liggéeyam ci zahir seydi haj malik mooy jël flambeau boobu yeggale ko ba ci làmp ngor bële te effectivement parce que époque boobu tariqa benn tariqa moo fi siiwoon muy qaadiriya mag ñu bari ñi jot a gëm tariqa te nekkoon sax ci diine laay wax ci lañ tënku woon ndax ñu ci bari ci ceddo lañ nekkoon euh, loolu nag kon Cheikh Al Hadj Maalik bi mu juddoo loolu la fi fekk ñu ngi wax ne wuy juróom bu góor sax ci tariqa boobu la tënku woon ndax loolu moom moo fi nekkoon nag euh, Cheikh Omar nag wax ci wàllu mukaashafa ak baatin ñamam alfa sa doom bi ñuy wax sa jarbaat bi ñuy wax euh, malik fa sa yakunu malikan dina doon ji aji yilif ji yàlla dogal seydi xaj malik teel a jël werd comme niñ ko jàngale dem ba benn bés nag mu ne ca euh, maanaam ndijaayam jox ko lépp mu dem ca daara ja benn bés di werd am ku nekk ko yow lan ngay faral di def guddi gi wala buñ jàngee ba pare nga beru di def sa yëfi kii mu ne ah loolu nag benn werd bu ma jël la muy tariqa Cheikh na Ahmed Tiyaani nee na mu tëb nekk ku la ko jox mu ne ko sama ndijaay taalibe Cheikh Omar la woon mu mel ni kooku da ko bëgg wax ne ko ñu bari ñu ngi bëgg lii mais gisuñu ku leen ko jox euh, est-ce que dooma ci jox ndigal xëy na muy Mame major Amar Bële mu ne ka man nag sama ndijaay daf ma ko joxoon rek waaye nangam nangam kon nag da ngay bàyyi ba ma dellu waalo ñaan ko ci ndigal maam Cheikh Al Hadj Malick ba mu delloo waalo ci ndijaayam ne ko ndijaay boo ma noon dem côté soowu jant de bari nañu bëgg jël werd xam naa buñ jotoon ci yow duñ ko gëmee xoola rek ci tegginam maam Alpha xool ko ba yàgg ree ne doom danga am orma rek am teggin waaye Cheikh Omar Fouti lam ma joxoon ne naa la ko jox mooy ndigalal joxe tariqa bi ak ndigalal doxal ko am nga ci ndigal kenn tënkula doom demal képp koo gis mu bëgg jël werd may ko werd donte xamoon na ne jox nañ ko lijaasa ca la amee nag tabaarakallahu xel mu dal dellu fii ci côté njàmbur ak tabaarakallahu gànjool jàpp euh, kajoor di fi maye nag werd bi mu mel ni rek nag kaar mu mel ni rek kaar ci ndigal Euh, benn ngànj maanaam benn benn ñax mu wow ñax mu wow ci jamonoy mbóoya nga jaar fa rek cosette alimet sànni ca wala sax nga jaar fa sotti fa essence ba mu tooy cosette alimet sànni fa nu muy def day jàppandoo rek dem si xaj maay kum may werd nga commencé werd ba yàgg yëg neexit gi wax ko sa moroom kooku daw ñëw euh, kooku bu ko yëgee moom it wax ko moroom ñu daw ñëw ba mu yëgi daara ju ne bootul mooy mujj doon moom boroom daara ji ndax taalibe yi dañuy rocciku mu leen di may wert te boobu mu ngi jàng étudiant la woon waaye mu commencé di tasaare tariqa bi nga xam ne kon am na leneen lu koy tasaare loo lu dul tabaarakallahu lii rek yàlla may ko déggin goo xam ne benn aaya bu ko jàngee wala benn xadis wala benn téere moom xaw na cee mën a bindaat fukki téere doo xam dégginam lu mu doon dafa mel ni déggam day sekki moom Cheikh Hadj Mari Euh, moo tax mu ne fa cheikhun kon li nga xam ne judduwaale la moom sëriñ la mu saarul fuuti yi mooy junjug cheikh omar al fuuti alamul ali mi nga xam ne mooy màndarga gu kawe gi li mu ko junjoon ala xaalihi ci najaayam muy góor gi alfahima yoro bu tabaarakallahu euh, di di càmmeñu yaayam muy alfahim cerno alfa bi sirrin ci secret boo xam ne mu wëffari mag ñi nee nañ ci barab bu ñoŋ la ko defoon moom Cheikh Omar jox ko maam Alpha ne ko xale bi bés bu demee ba xàmmee joxal ma ko yóbbante bi yooyu nag ay mot de passe la ak ay code nitu yàlla yi dañ koy faral di def nitu yàlla yi dinañ jox seen lekk sax ku juddoogul loolu moo dal borom Ibris Seydi Abdul Aziz Ibnu Mas'ud moom biñ koy jox yóbbanteem moom boobu ganeegul àdduna arab Arabi mi nga xam mooy maamam euh, moo al fustaali yi moo jël benn lu mel ni ay ko maanaam jàllaa bi wala manto euh, doxañ ko denc ko wax way juram nekk dinañ di ngeen am gan bis bu juddoo nangam lay tudd muy Abdul Aziz bis bu demee ba majeur nga joxal ma ko lii nekk maamam moo ko jox dunduñu waaye ba mu majeure nee na bés bañ ma joxee ay ka maanaam bu doon tey jii rek nga ne euh, benn garaam bu bu ko maamam denceloon rek yow boo foogee ne ab yére la dalay jaxal fekk na góor gi sirroom la ci def Chérif Abdoul Aziz nee na keroog ba ma ko solee laa xam li ma sama maam bëggoon a jàngal yépp yëpp yëpp xam sax leneen loo xam ne nii jotu ko woon a bëgg sol laa wax de sol yére bi rek de yére bi rek la sol fees del mu jégi mu bët yi taa muy jooy ñu naan lan la lan la mais nee na li mot de passe yi ko maamam doon jox yépp nee na ci sol gi mu sol yére boobu ci la ko gis waa massa nag koo xam ne moom dañoo bind ay code jox ko ndi yaayam maam alpha si xajmaay bu ci jotee xam nga dina xam lal la lii yàlla defal na ko tabarakallahu cheikh alhaj malik moo tax mu ne fa fuuti laqad qaala almuxaqaqu qawlahu Cheikh Al Hadj Omar moo wax ca xalwaar wala Hoore Fonde wala ne bi anna walid al fahimil mutabassiri ne doomu maam al fahima yoro bii c'est-à-dire doomu sëram huwa al waasilul fi'li moom mooy continuer effectivement bi jiilin ci génération bii di ñëw ya ummuhum mooy doon seen patron waa ki wax ne ki ñu défini ne yow yaay jiite ji sa pa yow yaay jiite ji sa génération te juddoo ko mu nga juddu teg ci di liggéey di liggéey kan moo la war a mën a tere jiite sa génération ma ne mane ne génération sax la jiite ak génération yi fi jaarat yëpp nag ndax ba mooy jiite loolu coobare yàlla la moo tax Cheikh Omar nag wax ne moo tax dañu wax ne nitu yàlla boo gis cërëm cërëm tabaarakallahu moom dafa ñëw ba ci àdduna soog a jot ci cër bi mais Cheikh Al Hadj Malick cër bi dafa toogoon di ko xaar ndax koo xam ne wax nañ sa parcours yëpp te ñëwu ko kooku wax dëgg yàlla cër fa la yem. Cheikh Omar dafa ne Al Hadj Malick wal waasilul bi jiilin ya ummuhum ne génération bii di ñëw mooy moo leen di jiite. ala xidmatil islaami ci liggéeyal islaam wan nax ji ak tariqa bi yansuri moo leen di dimbali mais énigme def cee am ndax moom ñi ko précédé yëpp doon liggéeyal lislaam ñu ci bari fii ni jaase lañ ko liggéeyale hmm? euh, ak benn euh, coono boo xam ne kenn mënu la ko wax kii nag benn service pacifique wala benn service passif la def moom daal danga nga koy robb rek mu dugg ci saxaar gi nga naan arrangement yi ni Dakar la jëm nga jekki-jekki mu rombaat la dem na Ndar nga jekki ñu ne wàcc na kel wàcci na Louga yow yooyu rek ngay dégg ba ñu xëy xëy tàgge la ko ñu nit ñi lool rek lañ ci am surtout ñu dëkk ci côté train bi ndekete dem dem yooyu fenn fu nekk ndekete ci waxin benn taal bu rëy la fay taal ba pare bàyyi ko ko di taal di taal di taal di taal ba laata muy dem fekk na yëpp jàppandoo moo tax avant muy am dix ans ci suuf tabaarakallah fekk na lépp taxaw yàlla yàlla yokk leeram moo tax moom du soxla kon jaasi mais nag loolu xam naa ñi ko àttan dafa bariwul parce que travail à long terme bokkul ak travail boo xam ne tey tey tey nga ko soxla soxla résultat bi tey moo tax fa cheikhun ala rabil xilaafati jalisun bi idnin min al baari fa yasxu wa yaskuri loolu lan moo ko ko may mooy mooy doon xalifatullahi fil ardi le représentant par excellence de Dieu yàlla nag ni mu màggee ku ko représenté fi barab xanaa di nga war a màgg lool ah kay looloo am Seydi Hadj Malick radiallahu anhu euh, sëriñ la certes comme sëriñ yi waaye nag jaalisun dafa toog ala rabil xilaafati ci chaise xilaafa muy représenté yàlla ci kaw suuf euh, bi iznin min al baari ci ndigalu nag yàlla ndax yonte yàlla daawuda li muy baax baax li muy nekk nekk yonent xëyul rek ne maay xalifa yàlla déedéet yàlla moo nekk ko yaa daawuda inna jaalnaaka xalifatan fi l ardi faxkum bayna annaasi bilxaq wala tattabi alhawa fa yudillaka an sabilillah in alladina yadilluuna an sabilillah lahum adabun alim bima nasu yowma alxisaab loolu la yàlla wax daawuda loolu itam la yàlla defal sayd alxaj malik fa yasxu waaw damay laaj nag ku naan luy mandilaate loo xam ne benn kaas boo ko naanee ci luy mandilaate mandi yow boo naanee kees ga noo war a def kenn yow xamat kenn doo war a xam noo tudd Seydi Aj Maalik nag fa yasxu moom dafay euh, maanaam xiixi wa yaskuri léeg-léeg day mandi maanaam bu naanee ba war a toll fi gaa yi yàlla yi toll day day dugg biir néegam tëj néegam ñu naan góor gi dafa tëju fekk na ku mandi di nga wax waxu sataxaat ndax ku mandi rek wax dara si Haj Maalik bu masaana nan ci leeru yàlla yi ba man di day tëju ndax day bañ a wax loo xam ne du mën a contrôler ñi koy déglu loolu tax bu tëjoo ba yëf yi seddat fa yasxoo mu mu wuri bu nga defee dellu dellu siwaat ci mbooloo mi ak ah, bay alaaj da nga tëjoon mën a waa dama xawoon jàpp rek yem foofu ndax généralement nit yàlla yi ku ci nekk ci xaal boobu ay gros mots ngay utiliser te léeg-léeg la ngay wax sax dëgg lay doon waaye doo bëgg a ñëpp jot ci moo tax nit yàlla boo gis ñu ne la wax na nangam wax na nangam ci ay gros dafa dugg ci xal yooyu dem ba màndi di tërëf génne ñu ne ko yow yaa yow yaa waxoon nangam wala yow yaay kan mu wax loo xam ne nii kenn du ko mën a firi ñenn ñi après dañ ciy génnaat mais ñu ci dañ dañ ci cramponné ndax lañ wax loolu lañ gëm loolu moo tax suñu maam Cheikh Seydi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu keroog bi mu woowee Seydi Mouhamadul Ghali oowul n'importe qui dafa on un homme de critique ana Seydi Mouhamadul Ghali ana Seydi Mouhamadul Ghali te mu ngi toog ak nit ñi kat ñu dem woowi ji mu ñëw Cheikh Omar moo nettali lii ci ribaax nee na te borom ak ko nettali muy Seydi Mouhamadul Ghali ba Seydi Mouhamadul Ghali ñëw nit ñaa ngi jaaxle loolu la koy doyee mu ne yaa Seydi Mouhamadul Ghali xadamaay haataani ala raqaba ci kulli waliyin lillahi taala moo ne ko dama lay yëgal ne la léegi nag yàlla xamal na ma benn cir bu ma defal mooy ñaari sama ñaari ndëggu yi moo tiim léegi képp kuy sëriñ di waliyu rek kooku kooku xool ka ree Seydi Mouhamadul Ghali ñu ngi wax ne doomu bàjjanam la woon na shérif la comme moom xool ka ree comme ñu ragalu ko woon da nekk yaa cheikh afi xaalati sukri am fi saxwi damay laaj ndax da nga dem wala yaa ngi fi <laughs> ndax gars yi yàlla da leen dal ndax yaa ngi fi yaa ngi yaa ngi à jour wala danga nekk ci xaal euh, Sey Seydi Cheikh Ahmed Tidiane ree na waaye sëriñ bi maa ngi fi waaye maa ngi sant yàlla maa ngi ci lucidité gu mat sëkk parce que dafa bëgg a discuter ak moom te pour nga discuter ak nit faw nga xam ndax lucidité bi mu ngi fi wala déet mu maa ngi ci lucidité bu mag alhamdulilahi rabbil alamin mu ne ko kon dinañ discuter lii ñu lii njëkk koo ko wax sa maam Seydi Abdul Qadir Jeylaani gis nga ni nga ko nawe ak li ngay wax ci moom ci mbaax mais moom waxoon na li ci ñaari dëgg mënta am mu ne wax na dëgg moom sama maam wax na dëgg waaye waxul woon li ma wax moom dafa ne woon xadam yi sama benn tànk bi bii martaba yam la doon junj te itam mu ci jublu woon wëli jamonoom te képp ku ko contesté woon dinañ la rëkki man nag dama dépassé loolu de xadamaaya laa wax sama ñaari tànk ba pare naa nii nag di ko téye nii xam nga mag moo janool nag muy dóor ñaari tànk yi li mu koy wax <laughs> li muy wax wóor nag ma ne ñaar yi laa wax mu ne kaa mu ne dama ne euh, sut na kuy waliyu bii nag waxuma sama waliyu jamono ndax même bu doon waliyu jamonoom sax rëy mu ne mais min la dun aadama laa wax ila ndax fi suuf depuis aadama ba àdduna buuf tey wal mu ne ko nag li nga wax rëy na ndax diggante aadama buuf di ay yonent lañ fi jaar mu ne wëli yi laa wax wëli yi ñu ne ko ak yi nag mu ne ma de min la doon aadama ila nafxi fi suur kooku bu intellectuel la Seydi Mouhamadul Ghali nekk waa li dama lay laaj benn laaj bu ñu xëyoon benn nit ñëwaat fii waxaat lu mel ni wax ji ndax yomb na trop nga wax ko mu nekk kenn du ko wax ba àdduna tukki ndax kenn mësu koo wax mu nekk dëgg nga fit mu ne ku ko wax doo yendu defe naa kenn waxaatu ko ba ren ba ren ba ren di nga gis ku ne oote martaba waaye xadamaay xaataani kenn waxagu ko waaye ndekete cheikh énigme la def utiliser woon ndekete ñaari tànk yi ba xat mi la woon ak kat mi loolu la nëbboon te loolu <laughs> dëgg kenn du ko oote nag loolu kenn du ko oote loolu la ko yàlla may loolu lañ tuddee les gros mots waju shahid bi liñ ci soxla mooy Seydi Mouhamadul Xaali daf ne ko ndax yaa ngi lucide wala lucido Seydi Hadj Malick nag bokk na ci wëli yu yi gën a lucide loolu la ko yàlla may moom du daanu leer du xaalu du wax loo xam ne dañ naan bu leen ko nettali moom fa yasxu dafay wuri wa yaskuri dinay màndi waaye dafay contrôler boppam na cheikhuna adimul misli laa yulhihi sukru an saxwi fi xaajaati yow mii li musci nitu yàlla yi daf ci am ñoo xam ne bu ñu nekkee ci xaal effectivement dañuy dañuy absenté boo nee nitu yàlla sàngam ñu ne ah moom de borom xaal la boo ñëwee di ko wax noo tudd sax du xam lu muy def benn nitu yàlla tollu woon na ci xaal yooyu topp mbedd yi di dox euh, ku ko nuyu rek ne ko ne waaw yow koy seeti ji looy wër mu ne man de ku ñuy wax diw laay wër te diw diw moom noonu la tudde moom man daal maa ngi wër ku ñuy wax Ibrahima ñu ne ko Ibrahima man mu ne Ibrahima dasuqi ci waxin ñu ne ko ma def na yaay Ibrahima dasuqi mu ne ah kon man la man de moom laay wut fan yi yëpp ba pare continuer di dem xam nga kooku bu fi nekkee itam fa mu ne sori na du dëgg nitu yàlla boo xamee dafay dox nii di waaxu ci tàngaay bi ndax mu tàng wi nga ne ko foo jëm mu ne sama bopp laay wëri daf ma réer fan yi yëpp ñooñu dañuy toll ci xaal yooyu mais boo xamoon li mu xam di nga xam ne li mu wax dëgg la day wëri Euh, nitu yàlla yi am na ci ñoo xam ne nee nañ bu ñu demee bëgg a waxtaan bu ñu bëggee dem ci grand place yi waxtaan yi day compliqué ndax nit ñi dañu fay nekk rek di werante moom pour mu mën a waxtaan xolam sedd day dem ba ci àll ba ca garab yi bu ko defee garab yi ñooy copain am mu mën a waxtaan ak ñoom. xam nga ne ñii nekkuñu fii kooku jàngalewul kooku jàngalewul daara mais si xaj maa nag du façon boobu moom ku lucide la koo xam ne nii actualité journalière sax boo ci waxtaan moom mu mën la ci débattaral dara. moo tax mu a fa cheikhun adimul misli moom dafa néew kem wala am amu ko laa yulhihi ndax du ko du ko daaneel as sukru mandem ani saxwu ba ci wuréem fii xaajaati yow mii ci les besoins journaliers li mushiri ci ku koy yëg ku ko xam dinga nga yëg ne cheikh bi boo ñëwee doo ko fekk ñu ne dafa nekk ci xaal mënul julli tey dafa nekk ci xaal mënul werd tey dafa nekk ci xaal mënul recevoir daayira bi tey dafa ne ci xaal du jàngale tey loolu doo ko gis ci moom te nitu yàlla yu bari da ni dal ba dañuy bëgg a tëju mais moom dundam yëpp da ko jàngale waaw damay laaj kuy jàngale ndax li dul hmm? moom kon ku mel ni moom dafay jafe moo tax benn sëriñ tuddee Seydi Haj Malick waliyu bu jàng bi ndax doon waliyu ba pare am xam-xam dafay xaw a jafe ndax ñaari extrême la bi extrémité de science bi ci des extrémité de savo euh, de de waaye moom ñaar yëpp moom la incarné woon te coowam bariwul d'ailleurs xam naa looloo taxoon mu maîtriser ba daawul bëgg lu feeñ ci ay kéemaan moo tax mu ne fa cheikhun fala yabdu alayhi xawariqun fa yuxfihi lissufahaai xiifata min makri Seydi El Hadji radiallahu anhu daawul feeñal ay kéemaan ak ay xar aada daan nga ko fekk muy dox ak tànkam jëm dëkk ak dëkk te am na buton boo xam ne bu ko bësoon rek dépassé mille kilomètres hmm? mais day dox de boo ko waxee mu ne non sama fas wa dafa xaw a kii daan nga ko fekk muy jàmbat xiif te am na bouton boo xam ne bu ko bësoon rek lépp ñëw tey daan nga ko gis mu toog ñu ne ko dépasse bi mu ne noo xaaral yàlla ñëw te moom bu am na buton boo xam ne bu ko bësoon léegi yëpp dox loolu la ko yàlla binde woon ndax nee na rus na boroomam ci dox doxin woo xam ne ni ay du ay du nit noonu la war a doxe yàlla da koy jox ay faveur yu bari mais mu ne rus na boroomam ba muy doxee faveur yooyu day jaar rek ci lu rationnel lu nitee bu waree dem ngay mexe day dugg ci saxaar gi dem wala mu war a dem tabaarakallahu tool day yéeg fas dem mbaa mu tànk ko et cetera et cetera moo tax fa yux fii dara nëbb kéemaan yooyu li sufaha yi ci xale yi ak ñu dese ñi xiifata min makri ngir bañ pexe bu ci jóge xam nga ki def miracle est-ce que le lendemain du yëkki mbagg yi hmm? xam nga géej gi ku ko xar boo ko xaree le lendemain nu sa kër di mel foofu yow yaay rey raw ngénte ñëpp ñëw ne ñu ngi lay ndokkeel nga naan ah loolu xeeb naa ko sax man dinaa def lópp lool bu ko defee seytaane commencé jug am ci yew cër donte ñi man loolu man nañoo mucc ci seytaane si aj maay nag da fafu fafu ko sax wut waaye xool li ko ci yàlla jotal a feeñal ndax mag ñi nettali nañ suñ Babacar kër la masa a toogal suñ Babacar a ko nettali toog moom benn silmaxa di way tabaarakallaahu maam as njool faama wala way yu mel noonu Euh, di ko way di ko way ba yàgg Seydi Haj Maalik génne dërëmu ngurd jox maam Xalifa ne ko demal ci silmaxa boobu nga ne na bàyyi bu ma way na way yont yàlla Muhammad te nga joxal ma ko lii nee na mu ñëw jox ko dërëmu ngurd bi ba pare déy ko ci nopp bi ne ko a yuuxu nga gën a way góor gi kontaan na trop silmaxa ba yuuxu baaw Babacar si dellu si waat toogaat ak Seydi Hadj Malick ba yàgg ne ko waa Babacar yow dafa mel ni waaj dafa gën a yuuxu de mu ne ah ci lan noonu mu ne ah yow dama ne nag na bàyyi way te way yonent bi mu ne ko ah moom de mu ngi way rek de mu demaat ne ko dellul nekk ko na way yonent bi wala mu noppi mais bu ma wañ sëñ Babacar dellu ne ko ma waaw góor gën a la yuuxu juuxul bu baax a ah, mu dellu sewaat te xaj ma toog ba yàgg waaw man yow xanaa kii danga ko waxul yóbbante mu ne ko si mu ne ah, mu ne ko bàyyi ko mu woy ndax yow li muy wax yaa ko ko sant mu ne ko déedéet mu ne ko ndax yaa ko fay mu ne ko déedéet mu ne ko kon jàppal ne yàllaa ko yabal muy wax bàyyi ko mu wax mu ne ko ah kër man de sax de ba ma demee mag dama ñaanoon yàlla lépp lu ma yàlla bëgg faye fii na ma ko dencal ba ëllëg yàlla bu ma kenn xamal dara ba ëllëg mag ku ma am ñu seddoo ko sëñ Babacar ne ah, ak li ñuy dégg fii yëpp ak li ñuy wayu fii yëpp mu ne ko ah loolu du dara waaye may gi ëllëg lay feeñ mu ne ko dafa fekk nag kuy togg dara bu baxee puurit mi léeg-léeg bu génnee tuuti dina am lu ci xeeñ mu ne kon si lii xew yëpp ci xeeñ gi la dakk mu ne ko waaw ci si xeeñ gi la ne moo tax ma ne kon de xeeñ gi foor na cent ans après yëf yi nii bis bu ñu demee fële kon xanaa tabaarakallahu moom loolu la mas a gëm nee àdduna du këruk yaatu kenn du fi firi sa parasol da koy lem rek alaxira nag gi nga xam ne tabaarakallahu fa la sécurité am ci ku texe euh, yàlla ne wala alaxiratu xayr euh, akbaru darajatin wa akbaru tafdila alaxira nag fa la lépp doxe moo tax Cheikh Al Hadj Malick daan wax toujours sawfa tara sawfa tara idan jalal xubaaru afarasun taxtaka am ximaaru moo tax moom dafa daan nëbb ay secret ak ay kéemaan fa cheikhun raqa marqal kamaali wa mulkahu yushaahidu adaban kulla maana min sirri nee na sax dépassé na ci euh, maanaam di feeñal ay secret ak yu mel noonu waaye Cheikh Hadj Malick maanaam mag mag ñi nga xam ne boroomi kurus lañ woon ku ci mas a tëdd ku ci mas tëdd boo nee gam-gam Cheikh Al malik ngay gis ci univers bi muy jaabante di dem ak ñëw ci baatinkat nga xam ne doo mën a jaar fenn yow ba romb ko ndax bu dee xalwa nga tëju mag mag ñu bari ñu ko jox seen kurus turu yàlla yañ xamoon yëpp dañ koo liggéey bañ demee bañ war leen recevoir ñu foog ne yonent ci moo leen recevoir wala nang Cheikh na Tiyaan yi njekki ki si Haj Malik la ñuy fekk ci benn saal mu toog ñu ne ko waajaa ngi nii day xam day mujj xam ñu ci bari dañu mujj ne waa lii ndeke ndeke mën naa nekk ku ci xëy gàddu say bagage dem ca Maodo boo bëggee nettali gént mu mu mu mu def la nii loxo bi pour nga bañ a nettali dara boo leen wéetee nag mu soog la leeral li ci aju moo tax mu ne fa cheikhun raqa sëriñ la boo xam ne yéeg na marqal kamaan yi maanaam yéeguwaayuk mat wa mulkahu ak nguur gi ruwaayute mat ci boppam Cheikh Al Hadj Malick daf ko téye kon ndekete ni mu tuddee Malick moom mooy tabaarakallahu mooy ki moom ki le détenteur lan la détenir mu ne ruwaayute xilaafa yàlla yu shaahidu gis nga ni nga koy gis foofu ko foo ko fekkee mu toog sol jàllaabeem nga foog ne day xool nii kese yow xoola de bëtam bëtta la yow mu ngi xool yeneen yu shaahidu mu ngi xool adaban ànd ak teggin gu mat kulla maanan xeetu sens yi mina sirri ci ay secret daan na toog jekki-jekki ne la ah doom defar leen toogaay bi parce que dañoo rax te ñi ñu rax du la ko wax euh, fa na am rutabun amimun si xaj maay dafa am cër yu mag a mag a mag mag wa chaamilun te mat waaye Serigne Cheikh Tidiane si dafa wax ne cër yi li muy rëy rëy li leen ci yéem mooy ba bi muy dem sax cër yi dañ vierge consommé wu ci benn xam nga nit sax boo amoon tabaarakallaa fukki compte compte bu ne nga ubbi ko bés bu jot nga retiré ci nangami million lu mu bari bari lu mu résisté résisté di nga jekki-jekki ñu ne il vous reste temps wala dëgg te téléphone rek di nga ko yor yor crédit ku la neex nga oo xëy xëy ñu ne il vous reste temps loolu nag moom Cheikh Al Hadj Malick bi mu yoree ay catégorie ci ay wilaaya ci may ci lumière ci martaba ba dañu wax ne ba bi mu fiy jóge consommé wu ko ba bi mu fiy jóge privilège yi mu amee woon yëpp nirale daal ku am téeméeri compte compte bu ne def ay milliards yu dul jeex ngay dund dund gu modeste nag rek ngir am loo rawale kooku defe naa bis boo demee fa nga jëm doo fa am problème du fekkee nga fekke na nga am réserve bu doy sëkk loolu mooy Cheikh Al Hadj moo tax ñu ne martabaam ba léegi ba bésu tey dafa vierge ndax kenn consommé ko moom wa shaamilun dafa matale bi qadamayhi ci ñaari tànkam yi ñaari tànk yi Cheikh na Tiyaani waxoon ne qadamaaya haataani moom Cheikh Al Hadj Malick ñaari tànkam yi dafa matale falaa yatgaa lahu al moo tax xolam du dengi dengi fi sayri ci dox gi muy dox jëm ci xadra yàlla xam nga léeg-léeg nga gis kuy dox manque équilibre day jekki-jekki rek daanu Cheikh Aj na melul noonu moom dafa am stabilité boo ko xamoon 30 ans après nga gisaat ko doo gis ci moom lu soppiku moo tax ñu bari pour mu nekkoon seen cëriñ sëriñ xaw na jafe ndax bala ngaa nekk balaa nekk sa sëriñ day fekk yow nga utoon say taalibe ba doon sëriñ ba pare boo ñëwee yow dina la leer ne moo la raw ci zahir moo la raw ci baatin te di nga yëg ne ba tey doonagul sëriñ yow nooy def ak sa njaboot gële da ngay am ba tey mu ngi dal këram da ngay ñëw fonk sa bopp oote lu ne ñëw këram ñafar ñala raw sut la di njabootu deretam wàcc gën laa wàcc yow xam nga kooku doo xamante yow fan ngay taxawati ndax dama wax ne sëriñ bi nga war a raamal boo fekkee suuf yow lan ngay defati ndax li ñu xam mooy ki toog ci kaw nga toog ci suuf yow pour wane sa soumission waa moom boo ko fekkee ci suuf yow lan ngay defati xa te doo sujjóot ndax dafa xaram loolu moom noonu la meloon moom Cheikh xaj ma ci suuf la daan toog euh, ba nga xam ne yow boo ñëwee sax boo bëggee modeste yow dangay dalay jaaxal te mag ñi dañu wax ne yar bi mu amoon loo baax baax loo bari bari daraja boo gisee Seydi Hadj ma da ngay ruus ndax yar bi ruus euh, ndax dal gi dajale yaram bi day dajale ay cëram yépp bokkul ci ñi nga xam ne dañuy toog tabaarakallahu fu ne ñu yóbbu fa cër day dajale yaram bi yépp toog di déglu booy wax ak moom religieusement yàlla boo koy nettali lu mu la gën a xam dina ko apprécier ba nga foog ne xamal nga ko lu bees fekk na lem ca xam sax du la xamul nu mu toll waaye moom du la ko leeral ndax teggin ak yar gu mu am di doxe nag ñaari tànk muy tànku sharia ak tànku xaqiqa te benn du ci jeng wëlis bi ci des nit yàlla yi ku ci naan xaqiqa pour nga delloo ko sharia day jafe ku ci naan itam sharia kese pour nga gëmloo ko xaqiqa day jafe waaye Cheikh Hadj Malick daf ci am stabilité ba léeg-léeg nga liir téeréem danga naan waa xanaa kii salafiste wala sunni Kabiir mooy wax nii te noonu la demee waaye itam léeg-léeg nga liir bindam nga yëg ne suufi piir eh, ak xutbu piir mooy wax noonu la ko yàlla binde mu am nag stabilité eh, fa cheikhun lahu sunanul huda bi istiqaamatin ka aadatihi laa bil bi tafaxuri ne li ko gënoon a yitteel mooy jub moom nee kéemaanu àdduna bi yëpp boo ko defoon moom nee na daal julli tisbaar moo ko gënal xam nga ñun tàmm nañu boo xëyee julli suba julli tisbaar tàkkusaan bu jotee nga julli timis noonu geewe léeg-léeg sax nga teg ci lazim ngoon lazim suba léegi nag dem jëmaat ci suba suba nga defaat lool ginnaaw suba te yow xamoo ne loolu mooy miracle bi gën a rëy dama lay laaj bés bu jot ñiy julli ci àdduna bi ak ñi dul julli ñoo ëpp ñi dul julli ëpp am na ñoo xam ne ji sax gëmuñu ko am na ñu gëm diine te duñ julli waaye tisbaar gi bii nga julli du kéemaan miracle am na ñoo xam ne sax weesu na loolu wéruñu ba mën a julli ba ba war koo tal yow nag fu tisbaar jotee nga julli gratuitement doo ko sax yëg tàkkusaan noonu timis noonu geewe noonu bu wës fa jotee nga def ko suba def ko ngoon ba pare naan waa sëñ bi ñaanal ma waaye ma am ay kéemaan yàlla day jaaxle moo tax Cheikh Al Hadj Baye kéemaan gi gën a rëy ci àdduna mooy jub mooy jaamu yàlla te dëkk ci may bàyyi bàyyi mooy yàlla te wattu ko nee na loolu ku ko yàlla yombalal ci waxin yàlla deseetu la dara nit kay bu la amee looy bor ci waxin koo xam ne ameel na la fukki junni ci bor nga jox ko cent mille maanaam ñaar fukki junni nekk jëlal bor bi li ci des nga jël ko kooku dina toppeeti bor yàlla nag ameelul kenn dara waaye ci waxin ku mu may nga mën a julli julli juróom yàlla boo ciy teg lazim suba ak ngoon bu digg yàlla dese la tu dara dara dara loo ko toppeeti itam da ko tooñ rek ci waxin donte moom dara waru ko ci fenn moo tax moom Cheikh Hadj Mali mu defoon karaama mooy jub te bañ a wàcc sunna moo tax mu ne lahu sunanul huda yoonu njub daal bi istiqaamatin ci ci xoccaaral ka aadatihi moom mooy aadam laa bil hawa waaye du yëngu ci passion bi tafaxuri di puukaréew Seydi Hadj Mali xamul lool fa cheikhun lahu siimaatu ahli saadatin yuhibbu li kulli nnaasi xayran ala gaay yàlla yi nag ni ñu baaxe woon rek moom noonu la mel lahu ñeel la ko siimaatu ahli saadatin melokaayu melokaanu gaay yàlla yi gis nga boo jàngee jikkoy yonent bi ci baax ci nooy ci yaru ci màndu bu gisee Cheikh xaj Malick danga naan xanaa bàyyiwu ci dara ba ci néew ay wax yonent bi xoolal li yàlla barkeelee waxam te buñ nee la bariwul woon wax dalay jaaxal yonent bi yow rek sa giiru dunda boo bëggoon jàngale ay xadisam doo noppeeti yow léegi ñu kook nag bariwul woon wax xam nga loolu itam kéemaan la hmm? yonent bi lu néew la daan wax waaye waxam yépp jamaa moo tax même bu réewee sax wax benn wax xadis lay doon ndax euh, sagesse ya cay nekk moom si xaj ma itam noonu la meloon manoon na toog ay heure du wax wala yow nga wax lu bari mu xool la rek na baax na moo tax mu ne fa cheikhun lahu simatu ahli saadatin yuhibbu dafa daan li kulli ci nit ñëpp xayran da leen bëggal yiw alal ci yiw ci kaw yiw mosul ndokku kenn mosul yéene kenn safaan ndax loolu la ko yàlla may ci stabilité sociale et fa cheikhun makkinun fi lwilayati malikun bi awsaafi xayrin fi lmaali almushahari fa cheikhun sëriñ la boo xam ne ni gis nga tanwin yi yëpp taadim la comme ni mu jiitu woon ci gannaaw wane na du sëriñ bu ndaw donte sëriñ bu ndaw amul waaye moom sëriñ bu mag la makiinun bu dëgër fil wilaayati ci wilaaya ndax wali yu ndaw yi am nañu wali yu ndaw yi presque sax ñooy foowe karaama ñu mel ni rek xale boo xam ne ni da ko jëndal picc mu def ci mu def ko ci maanaam utal ko buum di foowe picc bi xam nga xale boobu nga xam moom nga indil picc boo wartul la mu yitte ya mu amoon yëpp da ngay bàyyi nekk ci picc bi rek waaye àdduna xam nga picc mu ngi mais moom xale bi du ko du ko yëg yàlla bu mu doon nag picc pucc picc boo xam ne sax euh, faf kaw si la mu naan sama piccaa ngi nii day naaw day du gis mu picc bi naaw euh, wëli yu ndaw yi itam na la yàlla joxe benn karaama léeg-léeg ñu def nii rek ci air bi xaalis génn ngaan ki wëli la fekk xale la yàlla moo ko koy wéttalee pour mu doon passion mais Seydi Hadj Maalik nag waliyu la boo xam ne kii makiinun dafa dafa sori dafa arasinawu fil wilaayati ci wilaaya looloo tax doo gis mu def bases mu di nga fekk këram mu naan ñaanal ma léegi ñaanal ma pour ma am lu ma fayee bor sàngam nga ne loolu mënul nekk ndax ku ne xam na ne nitu yàlla ku koy takk ci may euh, ci ay karaama di nga réer dañ nettali ne Seydi Abdul Qadir Jilaani dafa mas di dox ci Manding Manding mooy désert boo xam ne dara new fa di dox di dox ba mar mbooya mi jàpp ko mu mar ba pare xiif ba eh, am kersa nag ñaan boromam te moom xut bu la di dem di dem ba yàgg xam ne jaadootul eh, mu wax ci xolam wala mu ñaan ne yàlla yàlla nga ma jox lu ma jëfandikoo ndax mel na ni sama samay réserve jeex na ci saa si rek yàlla dajale kook benn waay ci digg àll boobu mu naan kee nit laam du nit kee nit laam du nit ba ni mu koy jege see mu nuyoon teg moom mu nekk dangeen def na ko waa kër gi après nag ci la ko Cheikh Abdul Qadir Jilaani ne ko ah yaroo foofu lu nit mën a jëfandikoo mu ne ko ñun de bokkuñu ci ñi garde lekk ak naan parce que yooyu dimension ñi ñi ñi suufe la ñun yegge nañ ci yàlla foo xam ne ñu soxla rek dañ koy ñaan rek yàlla indil ñu ko boo bëggee nag mën naa la ñaanal yàlla indil la loo lekk loo naan mais ci charte ci sama barke sëriñ mu nekk kan mooy sa sëriñ mu nekk ku ñuy wax Abdul Qadir Jilani kooku daal boo bëggee boo d'accordé rek gëm gëm ko loo bëgg mën naa la ko ñaanal léegi ci barkeem yàlla indil la ko te moom mooy Abdul Qadir Jelaani ko góor gi ne ka yow est ce que xam nga kooku mu ne ko déedéet dama ko dégg rek sopp ko bëgg ko di ñaan yàlla fu ma toll bala ma dee yàlla ma yàlla wanaleeg moom loolu nag lay ñaan waaye ci barkeem lu ma ñaan yàlla may ma ko mu ne ko kon nag ñaanal mu ñaan ndeysaan plat ay njekki-jekk gis ay invisible indi fa ay plat ak ay nang ay fruits yu kenn xamul tabaarakallah Cheikh Abdul Qadir barkeelu ci ba mën a naan ndox mu sedd ne nag waa ji ndax xam nga ma mu ne ko déedéet mu nekk ko may Abdul Qadir Jilaani waa ji daanu ci kaw téere yi ne sew sew mu ngi ci parce que xoolal kii lekk gii mu ngi ko amee ci barke kan te te Abdul Qadir mi mi mu amee ci yoon barke lekk mu xiifan kay rey est tax na nga ne waa ji moo ëpp martaba Abdul Qadir déedéet seenu ko sax seenu ko sax kon ndekete am ay kéemaan ak i may firiwul sa cër Seydi Aj Maalik nag noonu la meloon dafa enraciné wu ci wilaya ba nga xam ni maanaam ay miracle ak ay kéemaan yi moom pour moom futilité la ba pare maalikun dafa maîtriser woon dafa moomoon bi awsaafi xayrin fil maali mushahari lépp loo xam ne kawe la lépp loo xam ne kawe la ak yiw ak baax Cheikh Seydi Hadj Maalik dafa mel ni bu doon bu doon fas wuy daw la moom moo téye laab gi am da ko maîtriser loolu nag defe naa ku xool dundam ak modestie gi mu amee désintéressement bi mu amee wàcc gi mu amee wax digg yàlla dina ko confirmer te jëfewu ko rek maanaam yem ci mais da koo bind oriente ci njaboot yi kon nag yàlla yàlla yokk leeram tas ñu ci barkeem bi max di fadli wujud yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa